ci commune bu Sicap Baobab ñu mën a seetlu lu mel ci bopp koñ bu ne. mu di mbind yoo xam ni day fësal merub ndaw gox boobee ñuy sàkku ñu leeral ci ban anam lañ doon gérer terrain yi nga xam ni dénkoon nañ ko ab comité de gestion buñ taxawaloon ci atum 2020 ci njàppandalu seenub chef de quartier. mën na générer par jour au moins 60 000 francs par jour 60 000 francs la journée pendant 30 jours à peu près c'est 1 million million pendant ces 4 ans lu méngóog xaalis bu bëree bëri bëri booy am téere seen biir ko ñu war ko defar xaalis bi nekk quatre ans ñu téye ñu téye ñu téye ñu téye terrain bi deux mois ngi nii mu tëj. xuloowuñu xeexuñu saagantewuñu defuñu dara nit tegi tuuma nag setal sa der yàqu si dara nee na leen ani sunu xaalis durant les quatre ans génne leen bilan. tegal ko jeunesse bi ne lii la ñu def. ca noonee kon ñuy sàkku eh, tekki ndombal tànku ñi nga xam ni ñoo bokk ci comité de gestion boobee. premier point bi mooy démission immédiate mooy bu bureau bi ak comité de gestion bu terrain bi ñu def bilan balaa ñuy démission ñu def bilan beneen bu ci toog mooy démission immédiate. bu chef de quartier parce que loolu demande la. ndaw ñi li fasuñ ñëwee benn yoon yam filé lay seen bëbët moo di yóbbu mbir mi ci yoon su dee nii amuñu liñ bëgg. on va tout droit bilan lañ bëgg c'est une procédure de la loi. qu'on rédige les plaintes ñu yóbbu ko fi ñu a yóbbu ñoom ñu fekk ñu fa mbaxane doonee benn parce que affaire grand lay doon ku fi war a tëddi jël day tëddi jël sans kersa. askan wile di ci woo kon maire bu commune bu Sicap ba loolee ngir ñu mën a taxawal la assemblée général ngir soppi bureau bi nga xam ni moo jiite comité de gestion bu tere yooyee